سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد برائي mbokk yi yi nga xam ne ñooy téléspectateurs yu Touba Monde bi di émettre fii ci Italie à travers le monde noo ngi ànd ak yéen di dund bis bu tedd bii di euh, bi nga xam ne mooy al isra wal mihraj bi yonente bi sallallahu alayhi wa jóge woon makkatal mu karam dem baytul maqdis yéege foofa wuti sidrati muntaha muy ay ngëneel yoo xam ne nag ci suba ba tey bokk yaa ngi fi ñëw di ci jàngat ci njàngat mu tegu ci xam-xam tegu ci sira ah loola nag booba léegi ci lañ continuer waaye ba ba bët set wala ba ba suba amu maanaam du jeex du xaaj kon kenn ku nekk am nga tafis goo taxawe koo xam ne si foofa ngay tànq gannaaw bi nga xamee ne sëñ Mahamadan jóge na fiit léegi ñu doon waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy ak taalube ak melakaan yi sëñ Touba doon jàngale foofa it la ñuy sëñ bu tedd bii di señ Lamine Diop moom ko gis mu saa sëñ Abdou Khadir wala njabootu sëñ Abdou Khadir gi yaakaar naa xam nga ko xam nañ ko ci taalif xam ko ci yu bare bare kon kenn du ko présenté kenn kon sëñ Lamine fi ñu bàyyee ak sëñ euh, Mahamadan rek xam naa ci point boobu la ñuy jóg su ko defee nag bu ñu ba ca daaneel ga ñu daaneele nag ci jëmmi Cheikh Mamadou Fadal waaye Euh, sëñ Lamine yoonu murit day gis nañ ne Mbàkke Kajoor la soso ci gannaaw bi fi sëñ Mor Anta Sali jógee sëñ Mor Anta Sali jógee nag ca déwén sa yamoog 1884 ci la yonent bi ñëwee bi sub ajuma wax ki nga xam ne mooy Serigne Touba ne ko rabbi asaabaka bil himma wala turabbihim bi darse faqat wa rabba kulla wahidin minhum bi ma yaliqu bihi loolu yonent bi moo ko def ba yàlla dogalee it sëñ bi wax woote ne jàngaletuma bis na tey ku fi mu jàng indi demal fa yoon wu bees bu may woote booba ñaari yoon a fi newoon ya ak xaadiriya te it ñi newoon ci daara ji matoon nañ ñetti téeméer ndax daaray sëñ Mor fànni xam-xam yëpp dafee nekkoon kenn mus sa laxas waaye comme xamuñu lu bees li muy woote xam-xam moo leen fi indi woon ñu waxtaan ba ñu ëpp ci nit ñu juboo ci ne ñun duñ mën a toog di tënkuwaat ci leneen. sëñ ba yeewee leen yaakaar naa ña jaayante ñu néew la waaye sëñ bi jamono ji fekkoon euh, jullit yi niñ daan jëfandikoo lislaam muy fi ma bàyyeeg sëñ Mahamadan foofu ngay tàmbale muy alxuraan ji nga xam ne mooy waxi suñu borom ji nga xam ne wax na ne laa yu masaw ilal mu taxaroon te sëñ Tuubaa tàgg na ko ci ay xasida yu bari booba ñi daan jàng alxuraan xaafisu alxuraan boo ko mësaan gis nii mbari làmb yi def lay def am mbicc lañ daan takk fu ñu romb bokk kaamil bi ñu xam ne kii mooy xafisu alxuraan bi dégg naa yi dañ daan gegenoo alxuraan boo ne leen alxuraan ñu ne alxuraan ak gegenoo alxuraan daanañ ci laawan yu bare bari ba alxuraan gedd leen jooy dem ci barab wéet suñ borom yàlla dogal sëñ Tuubaa fekk ko fa laaj ko lu muy jooy mu ne ko gedd na àddina gedd doomi soxna yi te danaa lay ak ñoom ñi ma mokkal di ma fowee bu ëllëgee dana leen yey dugal leen sawar yaakaar naa euh, bi sëñ Tuubaa ba wutal ko lal parfumé ko parfumé sikki ak misk ak libiya tiim ko naan kitaabun karimun min karimin mu karimin ak yeneen yi ci bari yoo xam ne way na ko yaakaar naa ne yóbbu na alxuraan sëñ Tuubaa teg na ko foofu yóbbu na ko ba fa suñ borom ba suñ borom jël alxuraan moomale ko ko kon nag bu sëñ Tuubaa ñëwee ba samp daara yooyu sëñ Lamin jàngale ak tarbiya nga xëy si ne njabootu sëñ Tuubaa gépp jaar na ci mu wax ne li ma am ci taalibe lees koy amee tey sëñ Lamin bu demee ba nëgë yoon wi mel ne dafay bëgg a delluwaat ca cosaan la. loolu lañu la bëgg nga laaj ñu laaj la ci lan moo waral loolu ak lan moo fi mën a jële loolu ak lu ca sëñ Touba waxoon kon bisimilah. Euh, sëñ bi sëñ Moussa Gueye euh, sant nañ baax ci waxtaan wi laaj bi daanaka tontu na boppam ndax bu njëkk sëriñ tubaa bi muy ñëw jamono sësul dafa wax ni dafa am lu ràppoon ma di ko yeesalaat. sëñ Tuubaa yeesal la def waaye suusu fi lan loole mu yeesaloon da koy yeesal ba mu set wecc am ñu ko bëgg a taqal ba noppi ñu ko bëgg a taqal nag bëgg a jóge ci njabootam wala këram loolu mooy li doy waar mu mel ni sëñ ba jaxate waxoon na ko nee noon ndaxam la fa ngiy xew gaañ yi loo xam ne dee ko gën lu bon la lu tukkee na ci seytaane ceddo bi waaw boo fi gis xol baa ngi feese ki aajo tey mu far soppi kalpe mu sëriñ tey fexe lebi kon dafa mel ni bëgg guñ bëgg yàkkamti àddina ak bëgg xaalis te jotagut moo dal ndaw yi te ay ndaw bu yàqoo rek société boobu yàqu na waaw ndaw yi nag liñ def mooy dañoo tëb ñàkk kilifa ñàkk kilifa lañ def kenn nangatul ku la te nit ki fekkee nanguwul ku ko yëlif nanguwul jàng boobu société réew ma doon réew moo xam ne nar naa dellu gannaaw te loolu dafa bari ci luñ koy gis li ciy firnde mooy lii nga wax ni bu njëkk alxuraan dañ ko daa jàng ba noppi wëlbatiku jël alxuraan ji wane ni alxuraan ji nga gis damay toog ci kawam ndax ñaari kaamil lañ xam nga loolu loolu dara gënu koo sànkute sëñ Tuubaa mu dikkee ne jël alxuraan teg ko ci kaw teg ko ci kaw lal yi fab sikki di ko ci xëpp di taw ci teg alxuraan ci kaw moom di tëdd ci suuf war leen di alxuraan waxi yàlla moo war a gën kaw kawe lépp ñoom ñu dem ba fab alxuraan jooju teg ko ci suuf jatt alxuraan ñoom dañu loolu lañu def jamono ji da gis ñoo xam ne bu ñu tuddee alxuraan ñu wax ci wax ci lu doy waar Sëriñ Tuubaa nag lu mu am mi ngi am ci alxuraan kitaabu rabbi kaana li wa kuntu loxo walilaahi bii sàkkantu sama yàlla damaa jox téere bi ma dëkkaaleeg moom ba am ci jege yàlla kon alxuraan du lu ñu so lu ñu so lu ñu te loolu moo am jamono ji am na bayit yoo xam ne maa ngi ko wax ci ñoom sëñ bi muy lu doy waar am nañ wattu alxuraan ba noppi wat alxuraan ci gëm ya wetti alxuraan ci gaal woowu yëloowu ko am nañu wattu alxuraan dañ koy wattu ba noppi wat alxuraan ci gëm ya wetti alxuraan ci gaal woowu yëloowu ko mokkal ba noppi mokkuloo ci ñii la jur te màggaloo yow say sëriñ di mànkiloo koo bokkulul xalaat ba ko gone tey li ñu góoroo da nga gis gone guñ bu ñu xañee ne mokkal alxuraan tari na te su demee ba jox la baayam benn loxo la ko jox wane ne moo gën a kawe ndax baayam mokkulul alxuraan kon alxuraan dafa daa def ci nit ak ragal yàlla ak gëm yàlla léegi nag gone yi li mu def ci ñoom mooy buñ dikkee xeeb seen i waajur duñu am kilifa moo tax dañu jël alxuraan wetti ko ci woo xam ko ndax foo mokkal alxuraan da war na mokk mu mel ni li sëñ bi sooxatoon dañoo ñëw bëgg ko dindi waaw ñàkk boobu ñàkk kilifa ñàkk warmaal alxuraan ci la ñuy warmaal ñàkk warmaal seeni waajur kuñ gis ku ne duñ la warmaal gone yi ñu jël loolu def ko ci xasida yi ñu wax wax nañ ko ba tàyyi nit ki de jàng benn xasida nga dajeeg moom muy gone boo ko joxee cati baaram la jox war na daal moo la gën a foor te am na ko jàng fukki xasida ba noppi nit ci mboor gannaaw yow nga jàng ngeen xasida goo xam ne jeexaloo ko nag wëlbati ko war ne yaa na a kawe ñëpp kon li ci yàq ci yooyu dafa bari lool moo tax it mën leen woon ñetti bi du am solo ndax mag ñii sëriñ bi mag ñi sëriñ Bamba yaroon ak soxna yii Bamba yaroon ak téere yii mag ñi yëroon ku leen sikkal ma sikk ko lépp nag ñi jàngi woon ñoo dikk xeeb ñi jekki woon dem weddi mag ñi jege woon sëñ Bàmba gëm ko topp ko te Bàmba nag la woon sunu su leer la ànde woon ak ñi yaroon daa ànd woon la wuur ya bëgg sore ko ba tax mu dem sañ jub dëkkam wut teelubeem buur wut dagam ku ne dëkkam te ne du gëm Bàmba ak ñooñam na génn ko képp koo xam ne da nga ni léegi li sëñ bi def muy sarixatul mu tax taxara xaqiqatul mu nawara soviétul mu barara ñetti wasiila Sëñ Tuubaa indi sam samp ko lépp lu wuute sarixa wuute xaqiqa wuute sovié Sëñ Tuubaa woo ci dara kon nag li xew suñ bëggee gis léegi nag gone yi ndaw ndaw ndaw jóg fekk li mag ñi liggéeyoon ñoom dañ ko yàq seeni waajur ñu jonn di leen xool ñooñee ñoo leen war a yedd gone yi defuñ dara seeni waajur yooyu ñu war def dara nit ki doo ko dundal di ko jox muy lekk di jox muy naan te loo rëdd ni lii la yàlla wax mu wax leneen teg ca wet ga waaw te loolu mu am jamono ji yi ñu coow yëpp loolu dong la du leneen mu mel ni <clears throat> xam naa sax ñu ngi doon saaraan waaye guddi gi nga xamante ni mooy laylatu israa wal mi'raaj nga xam ne subhaana lazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa sunu borom daf cee rañaane yonent bi sallallahu alayhi mu jóge baytul muqaddas jóge Màkka dem ba Baytul Muqaddas guddi gi mu dikk indil lu ci julli moo tax julli sunu borom da koo jël directement jaarloo ko ci Jibril jaarloo ko ci julli gi mu ñëw ma xam ne da koo directement la ko indi lu ma saa ñëw ci yonte bi dañ ko fawxee ilaa abdihi ma awxaa loolu wax yu ko daa def waaye bu julli dikkee ne da koo woo ba mu ñëw ci asamaan mu jàkkaarloo moom jox ko loola ba mu ko jox Jibril fekkewul albrahama waroon fekkewul di yàlla ak xaaba xawsayni aw adnaa mu soog ko jox li mu ko jox julli di ponk boo xam ne ponk lislaam la boo xam ne kenn ku ne war nga ko fonk ndax li nga ko war a fonke mooy bi yonent bi yàlla eh, demee te daje yonent yàlla Moussa daf ko ne juróom fukki julli laa laa laa bëgg indi sama xeet wi mu ne ko juróom fukki daa bari ju ne ko wàññi ba muy juróomi julli kon nag juróomi julli yooyu war nañ ko fonk war ko toppatoo waaw sëñ bi sëñ sëñ Tuubaa wax ne rañaan mi ñuy wax ne dafa am ñoo xam ne dañoo ruux gi moo dem ñii ni jëmm ji dem na mën a surul amini mahal amini fawqal amini li las fi yaay jëmmi yonent bi sala sala moo dem ànd ak roo gi lépp ñu dem rañaan waaye du jege ne dañu tëdd ci lal bi nga koy làmb jëmm ji dem li ci des des fi Sëñ Tuubaa nee na xat baata yusri yi wa jibrilu sara ma fawqal buraaxi ilaa samaawaati dafa rañaan ba jëm ci gaw asamaan ànd ak ba mu demee jibril indil ko lii nga xamante ne nii mooy julli juróom kon julli juróom ci boppam lu am solo la sëriñ Tuubaa nag am na ku ñëw ci bis ni ko ah, damay laaj lu jaamu yàlla yi lu ci jiitu lu jiitu benn la ko laaj sëriñ Tuubaa ne ko jaamu yàlla li jiitu mooy julli mu ne xayartu yaakaaroon naa ko yaakaar naa julli mooy jiitu daani ko moo tax nag ñi nga xam ne dañuy bañu julli ni am na lu gën julli sëñ Tuubaa ni ko ah, waxuma la gën de danga ne ma lu ci jiitu li ci jiitu mooy julli waaye li gën nag mooy infaq fi sabilillahi allazina yunfiquna amwaalahum fi saraay wa daraay wal kaasimiina xaysa wal xaafina ñooñu ñoo ëpp njariñ ci àddina ki nga xam ne joxe àllam te ko joxe ngir yàlla sëñ Tuubaa nee na ko loolu mooy li nga xam ne mooy li gën ah, léegi nag ah, ki nga xamante ni feeñ na ci guddi gi muy seex Mouhamadou Fadal yaakaar naa ne bis bii ku fi ñëw nii rajo xasit def ci timis ba tey mi waxtaan di waxtaan ci jaloore Sëriñ Fallu di waxtaan jare Sëriñ tubaa di waxtaan ci jare jare al isra wal mihraj yaakaar naa ne lii koo xool da xam ne Sëriñ Fallu doon na koo xamante ne nii am na ci boromam cér bu rëy te li ko waral nag mooy guddi gi nga xam ne ci la feeñe xam naa dañ ci jàll laal tuuti bay ay bayit ci li nga xam ne def nañ ko ci Fallu suñ ko defee bisimilah waaw kon euh, sëñ Lamine ñu ngi lay sant bu baax dëgg yàlla li nga développé indi na ay poñ yu bari te it euh, bokk yëpp danañ ko mën a jariñoo te it méngoo na ak euh, guddi gi ndax guddi gi guddi jaamu yàlla la ndax ci la jaamu yàlla wàcc ci la suñ jàmbaar ja wàcc waaye bëgg nañ nag nga xuusal ñu ci sëñ Fallou ndax sëñ Fallou waajuram bu jigéen soxna wa bu boo ko toppee day dem sëriñ Touba it noonu. kon dafa mel ne bokkule leen ak Serigne tubaa yu bari ci wetu waajur wu jigéen waajur wu góor ak i melo ak i jëf léegi boo ñu doon euh, résumeel walla nga portaleel ñu sëñ sëñ Mouhamadou Fadal nan nga ñu koy portalee léegi kon nañ la jox kàddu gi ñu ànd ak yow ci télévision Touba Monde bi à de le monde ñëpp ngi ñuy déglu su ko defee ñu xam kat mooy Cheikh Mouhamadou Fadal sëñ Malamine. jërëjëf Cheikh Mouhamadou Moussa Cheikh euh, loolu nga wax Serigne Fallou Serigne mooy Serigne Touba ndax sëriñ bu soobee ak Soxna Jaara ñoo bokk ndey baay sëriñ bu soobee mooy waajuru Soxna Awa Busa muy waajuru Serigne Fallou Soxna Jaara muy di waajuru Seexul Xadim nga xam ne dafa demaat bi ci biir Serigne Fallou ci biir woy danaa la ko ci indil Serigne Touba nee na ko pepp ak mooñ la maa yow pepp ak moom lañ mooñ lañ moo tax da nga gis nit ñaan ni nañ dem ci Serigne Fallou ndax ñaan gi day gaaw. ndax dafa bindu kaamil yit ko sëñ tubaa bi mu dikkee sëñ tubaa gis ubbi kaamil yam ci woo barran bi wàll day muy doom joo xam ne dafa topp ci baayam mu ne muy doom joo xam dafa topp ci baayam mu ne day joo xam ne dafa topp ci baayam sëñ Fallu ni ko nag sëñ tubaa ni ko yow man nag pepp laa yow ngay ngay ngay ngay mooñ sunguf sunguf nag boo gee sëñ Fallu ñaan bu ñu ñaan ñaan gi day gaaw loolu la ndax sunguf moom bu la neexee léegi nga togg laax bu la neexee nga ruy bu la neexee nga def cere pepp na da nga soq wol foofu soog a sonn kon nag Sëriñ Tuubaa mooy sàq mi di pepp mi waaye Sëriñ Fallu day sunguf su tege fee loolu tax gaa yi ñu bare bare da ci di ñaan loolu tawxiid wér la tawxiidal nañ Sëriñ Tuubaa tawxiidal nañ Sëriñ Fallu loolu tax nag ma indi ci ay béy di ndaw rek jox leen ma nopp yi ma dellu seeti tooyal xoluy jullit yi sotti kooti amaana ngay gis kuy nelaw bay gént te mën a yee nit ba mu yeewu sant man lii ma wax donte le daa caa nekkul jëlal la cay jariñ te bul ma gàkkal daay sulle ay joloore yooyu sax suuluwul ngir dara darajey nabi ba tey ñi ngi koy biral kii may misaal daa xew te dootul xewi ngir diine diine jéeg murit gi moo ko tawi suñ fal daam ko sun mbubb ñëw ni ko mbubb mi daa rafet lool mbubb mi mooy li xew mu ne ko accam yéen mbubb day xew mbubb day xew di xew xewi mën na dama doon ko xam damay xew duma xewi suñ fal lu mu jot ak màggalam day gën a yokku nit ñi gën a bari moo tax nag kii may misaal daa xew te dootul xewi ngir diine jéeg murit gi moo ko tawi saalika fadlullaahi laa koy tàmbalee yootihi ma yesaaw sëñ Fallou ngile laylatul israa gi yàlla def lu ne ci la gënee adduna lee tax du gone moo dàq xiif dàq fi ràkkal ràmm génn fi rafle may na réew mi jàmm al yawma akmaltu ji yàlla wax rasul sëñ Bamba mii ñëw nag di xaadimu rasul moo def sëriñ Fallu matal sembam yii ma wax la sëñ bàmba lu doon sembam yi ñaar la bëggoon mu doon yàlla ak yonent bi xanaa la ko ñetteel di mooy dëkkam bii te sun borom ginnaaw deful lu ñuy gis waxam la wàcc fi fii nu ko gis bëggug sëriñ bi moo di tubaak alxuraan sëñ Fallu lii la def ci tubaak alxuraan ñaar fa ñaar fukki kaamil juróom yu mat sëkk ñaar fukki kaamil juróom yu ñaar fukki kaamil juróom ñett yu mat la bind mooy arafe Touba ak amat <coughs> bindal na Serigne Touba ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett mooy arafe Touba te xët wu ci nekk ñaar fukki bind ak juróom-ñett la koy def ñaar fukki bind ak juróom-ñett waaw mu toll ak arafe Touba ngir bëggum bëgg Serigne Touba keroog moo ko waxee Alaaji Baar Alaaji Baar daf ne ma man da jeexle naa ndax xamoo ni bind yi ñaar fukki juróom-ñett la kaamil moom xamoon naa ko waaye xamoo ko daal dem wàññi ko ma ne ko demal wàññi ko. li gën a yéemu moo di xët wu nekk yit ñaar fukki bind ak juróom-ñett la yit ku weddi lii ma wax demal ba nga wàññi ko man maa ngi lay xaar ba nga dem ba wàññi ko ba xam da fa gis lu wuuteeg lii ma wax doonuma koy jabatu koy forooti wax mas naa bindal sëriñ bi kaamil yit ko sëriñ bi jël kaamil bi rekk ubbi ko yam ci baran bi waali day rekk mooñ ni ko laggal cey fàllu pepp mooy mooñ kaamil bi mujj bindal sëriñ bi it sëñ bi da koo sant gërëm ko wax ko it ni ko nanga nga bindal sunu borom kat ngir sant naa mu sant moog yonen bi it bindal yàlla sunu borom kamil sëñ Fall ni ko def naa sama njureel muy addiyee kon naa la bindal kamil bi jox la ko dama laaj dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa koy liggéeyal bindal naa ko kamil yàlla mii nag ba lu ma ko bindal damay fay moom ndax yàlla daa mu pay kon nag bu ma fayul du ma bind sëñ Tuubaa ne ko pay eh, gi mooy lan mu ne képp ku la gëm yowmal xiyaam bu duggee bu tàbbee ci jaat na ne coow jëm àjjana kenn bañu luñ tu mbiram kenn bañu ko laaj su ko manee gis nga su ko manee ma tàmbalee ko tey su ko mënul nag ñaan ma ne damay xëy moom laay nettal nii kaamil bi mujj bindal sëriñ bi it sëñ bi da ko sant gërëm ko wax ko yit ni ko nanga bindal sunu borom kat ngir sant naa mu sant moo yoneen bi it sëñ Fallou daal ni ko man sama borom balaa ma ko bindal ma fay ma fay ko kaamil bi daa koy jaay su bëggee na jënd bu njëggi téewul aw araf du ma bind sëñ bi ne ko négal ma laaj ko ko ba xam ab diir bu néew mu ne ko nee luy njëgam sëñ Fallu ne ko liy njëgam mooy ku la gëm yow man xiyaam dafa dajeeg lu dul ngërëm bu kenn lu ñutu bu kenn lañ bët mbiram moom na ne coow àjjana mu doon këram su ko manee ma tàmbaleel ko tey tey su ko mënul ñaanal ma nag damay xëy sëñ bi gaat ni ko ndigal ma laajaat ba xam dana la may xadaaw xaajaat mu ne ko may na la tey murit bu wàcc ci jaat tàggoo ko coono waaye nag bu laajaat ni ko may na la murit bu tàbbi ci jaat tàggoo ki jaana waaye nag bu laajaat ndax yàlla nee na kat boo yeexee da nga ko laaj nguuram gi du la ko mën a jox kon loolu kon ci mbirum suñu fadu la léegi léegi dañu bëgg ñëw ci euh, sëñ Fallu bu ma xëy nu muy def xaaral ma wax la luy xëyum sëñ Fallu ba gaayee daa xëy daa jëlu ba dellu daa jëlu ba dellu gaay yi xëy defe ni ñu xëy seegul fekk dem na ba yàgg saa bu jullee fa saa bu jullee nag fajar wér des ndiir wut kati dépasse yëpp ñëw def ko mu ndiir bu jant fenkee nag mu tàmbalee joxe bam naaj mu génn seex si tàmbalee joxe ñii seeni haddiyee ñëlit di ñaanlu muy joxe ay xéewal ñëlay barkeeloo bu ajjumaa bu julli jee jàll këram maam yàlla na nga yàgg saraxnu ay dërëm mu toog ci biir baraag ba nag naa leen daam ñu naa ko yaa bare njariñ te yaay daam amoon naam ponkal mu tudd booy naar xam naa ne fi mu ne ku ko gis muy bàyyi naar ku ma safar lu bari nag joxoo ko mu békk sab loxo mu rat mu for ko moo tax gone yi yëpp di ko giiñee barkeb sëriñ Fallu li ñépp daañee gone ku juddu am na ak toqantal sopp sëriñ Fallu ci lañ lay nampal sëriñ Fallu Mbàkke fi mu ne mooy kafeeg mburu koo gis mu xëy ndékkiwu ci daa siburu dong yëpp moom lañuy ñuy yalwaane géwél yi yëpp moom lañuy ñuy wayaane sëfoor si moom lañuy ñuy joxe seen oto yi mool yi ci lañ embarqué seen bato yi jumaa ji mat na ci ayug sëñ fallu dëkk bi nattu ci ayug sëñ fallu lii mat matal na ko mu doon jumaa ji tàmbali lii dul mat du maasum gaañe dàq na ger beeg rafle indi xéewal ñaanal murid yi fa sëriñ bëgg njëgal sëñ Fallu nag ñaari bayit yi ci laay jeexale falloo di muslukaay te moo di mosukaay loo ci jëmbat mu sax te loo jàmbat mu saay falloo di muslukaay te moo di mosukaay loo ci jëmbët mu sax te loo jàmbat mu saay kon sëñ Moussa lii lañ bëggoon barke ci sëñ Fallu allahu akbar allahu akbar jërëjëfe sëriñ tubaa Touba jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal jërëjëf sëriñ lamin sëriñ Lamine la nga indi macha allah yal na la yàlla fay saral nga xol yëpp wallaahi lasim man nag maa ci raw ndax yi taalif moom mosuma ko euh, teg bët te it wax dëgg yàlla tegu na ci xam-xam tegu na ci euh, orma ju mat sëkk joo xam si moom lañu ñu war a ormaale ku koo xam ne si dañ koy ormaal rawatina jëmm ju mel ne sëñ Fallou xam naa day dana am loolu moom liñ naan saxaar lu mu xat-xat mën a yóbbu leetar diggante sëñ Fallou ak sëñ Abdou Khadir bëggoon na maa xam nan lañ demee seenu bokk jëkk ñuy bokk sëñ Touba. soo ñu ci mënee leeral dara rek ndax loolu lu ma ci xaw a lënt la ak uh, waajuru sëñ Abdou Khadir nan la demee ci Maam Maaram. <coughs> jërëjëf sëñ ak sëriñ Abdou Khadir seen ñaari waajur jigéen ñoo bokk sëriñ Bousso bi soxna Aminta Bousso mooy waajurub sëriñ Abdou Khadir sëriñ Bousso bi Bousso mi bokk maam Jaara ndey ak baay mooy waajuram sëñ Fallou soxna bu Bousso mooy waajuram soxna Awa Bousso sëñ bu soobe mooy waajuram sëriñ bu soobe ak soxna jaara ñoo bokk ndey ak baay foofu sëñ bi dañuy wax ni maa ngi koy nettali ci màggalu sëñ Abdou Khadir sëñ Moussa xamul xamul am solo nit lam la bu bëggee dañ ne bu fekkee da ngaa bëgg a jurub jàmbur jëlal ab jàmbur soo soo bëggee jël sa bopp jëlal sa bopp sëriñ bi boo xoolee soxna Awa Boussa mi mu jël am ci sëriñ Fallou jël sëñ Abdou Khadir mu jël soxna soxna Aminata Boussa am ci sëñ Abdou Khadir jumaa yi Tuubaa sëñ Tuubaa julli rek la maa ngi koy wax ci wenn way woo xam ne maa ngi way sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dañoo wax ni julli gi mu julli ci géej gi man leen julli gi su fekkoon daa julli ba noppi ñëw def xabla salaam wala mu def banda salaam kon kat dañ naan kii kat tiitoon ndax bi julli fexe na ba julli gi manqué wala mu yokk man leen ma woy ka fab lal géej bi julli mu mat te bax xablawul xiblab sëriñ saa ngi waaw kii moom ci daaraam la génnee Ibra Faati sa ak Ibra Faal ak borom gaawaan mbërëm yaa ngi li tax ñu naan sëñ mag bi doy atom yu bari ay jëf yu mag la jëfoon seere jëfam yaa ngi dëkkam bi moo mag jumaam mag am ngërëm gën a mag magam ñu naa ko magum mag sëñ mag baa ngi am ndey ak bàyyi am ko bokkal mag ba noppi ñaari sëñ mag bi kon ay jëf la julli googu mu fonkoon nag Cheikh Mamadou Fadil jiite na ñaar fukkat ak ñett Cheikh Abdou Khadir jiite ñaar fukkat ak ñaar muy ñeen fukkat ak juróom kon lim jëlee ci boppam daal di disaat bopp ñoom ñoom dañuy disaat doon boppam ndax mi ngi ko jëlee ci wàllu kër na jaayam waaye ñeen fukkat ak juróom lañ jiite ñoom ñaar ñooñu kon ñoom ñooy julli yoon wi Cheikh Abdou Khadir sëñ Fallu dane ko bis dafa dem mu ne ko fa Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir mu ne ah, moo ko del toog di jullee néew yi di tudd doom yi kuy ñaan lu bu digg nga ñaanal ko sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir def noonu moo tax ñoom ñaar bi kii doon ilimaan bi mu jógee kii doon ilimaan kenn ku ci nekk dangay toog sëñ Abdou Khadir lu ay soxla ci jullee eh, néew jullee na nit koo xam da jullee jullee doomam jullee sëtam tuddal na nit doom tuddal tuddal ko doomam tuddal ko sëtam bi mu nekk xalif général di murit mu jóg di tuddi sëtub kooka ñu ne ko kooka yaa tuddoon baayam tudd maamam kon da nga yable mun leen ñun lislaam bu fekkente ni liggéey bi suñu liggéey mooy lislaam suñu demee ba lislaam soxla dara ñuy ñu ci ñu cay def luñ luñ fi jariñ luñ fi jariñ suñ tuddul doom yi ñeenti wuñ julli wuñ ñu néew luñ fi jariñ moo tax ñoom ñaar seen diggante dañoo doonoon benn dañoo soppante woon lool ci bokk ba noppi soppante lool kon sëñ Moussa loolu yow tam ci diggante sëñ Abdou Khadir ak waaw jërëjëf euh, sëñ Lamine yal na la yàlla gën a taxaw euh, ñëw gi de mënu woon a ñàkk waaye nag euh, bis bee ko waral te ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg bokk ñu fas bokk ci ku ñu fas mu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul yàlla nañ daje ngërëmam yàlla nañ daje ngërëmam amug wér xéewal gu saawan baawaan ba faw ci barkeb Sëriñ Tuubaa kon nag ñu ngi lay sant bu baax kon euh, téléspectateurs yi ñu ngi lay sant di leen gërëm lii mooy li nga xam ne moom lañ leen toftalaatoon ci jataay bii e, weesu sëñ Lamine mi yaakaar naa ñu bari xam nañ ko yéen ñi koy gis yëpp it na ngeen ko ñaanal te xam ne sagu yoonu murit la yàlla na ko suñ boroom sagal sagalu njabootam sagalab dëkkam sabalu askanama ko xeetam kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu